bokki jullit yi bokki taalibe yi jàkkaarloog ñun ak fu ngeen mën a nekk ci biir àdduna ak fu ngeen mën a nekk tam ci biir senegaal ñu ngi sant yàlla sunu boroom di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen ziyaara ci eh, xew-xew bu mag bi nga xam ne moom lañu dëgmal muy eh, fàttaliku ñaar fukki fan ak juróom-benn. jëm ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rajab muy weer woo xam ne jullit yépp ko bokk ni ngeen ko xamee ndaxte sunu borom ci la rañaane woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko la mu ko jox mu an mu andi ko muy sëriñ bu am solo xad jaab bi mayri jooju sëriñ bi wax rañaan ma moo tax waaye ñi nga xam ne ñoo de waa kër Cheikhul Khadim am nañ ci seen xaasi bopp ndax mooy bis bi nga xam ne ci la sunu jàmbaar ja murit ba taalibe ba liggéeykat ba di Cheikh Mouhamadul Fadil ci la gane àdduna ñuy fab sunu nuyoo ak sunu ziar teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla na fi yàgg te wér waaye itam teg ko ci loxol Cheikh Abul Baraka mi nga xam ne moy jëwriñu kër cheikh mohamadul fadil ak nag mbooleem njabootuk sëriñ fàllu ak nag mbooleem njabootuk cheikhna ahmadul xadim ak nag euh, jullit yëpp ndax sëriñ fàllu ñëpp a ko sopp ñëpp a ko bokk xam ngeen ne ren euh, màggal gi ñëw na ba noppi mu nekk euh, incha taala ñaar ñaari fan ci weeru avril wi ñu dëgmal ci atum junni atum ñaari junni euh, ak fukk ak juróom-ñeent ren nag kilifa yi nga xam ne ñooy saytu màggal gi ci kilifteefu Cheikh Abdul Fattah mi nga xam ne moo yor kàddu kër sëriñ Fallou waaye nag ci taxawaayu Serigne Ahmadul Badawi mi nga xam ne mooy jëwriñam ci liggéey bi xam nga ne ren ñi ngi euh, tànn tomb boo xam ne moom lañu ñu bëgg a waxtaane ci jataay yëpp moom la ñuy waxtaane conférence bu mag bi nga xam ne daairatu ahfaadi cheikh Mouhamadul Fadil ñoo koy def moom itam moom la ñuy waxtaane te mooy euh, liggéey am solo gu liggéey am solo ci lislaam waaye nag joxe ci misaal cheikh Mouhamadul Fadil taxawaayam euh, ci jëmmal tomb boobu nga xam ne moom la ñuy waxtaane ren xam ngeen ne liggéey moom lislaam moo ko santaane foo dem ci alquran da ngay fekk sunu borom di ko tudd bu ñu demee sax ci saaru jumaa al jumaa ba sunu borom di soññee ci bu ñu noddee ajuma na ñëpp lagg dem julli ji waaye da ca teg ne bu ñu sëlmalee na ñëpp lagg dem liggéey fa ida solaatu salaatu fantashiru fi l ardi wabtagu min fadlillah kon bu ñu jullee ba noppi nag nangeen tasaaroo ci kaw suuf si sàkku ci yi ak ngëneeli sunu borom waxaat na ne fa ida faraxta fansab boo euh, jaamu yàlla ba nopp ba noppi ci jaamu yàlla ga na nga dem defe defe geneen jaamu yàlla mooy na nga dem sonni liggéey kon foo dem ci alquran dafay santaane liggéey lu mel ni azaka mu ciy soññee te xam ngeen ni kiy liggéey mooy mën a génne asaka lu mel ni sàkk sarax mu cay soññee te xam ngeen ni kiy liggéey mooy mën a sàkk sarax lu mel ni jokk sa bokk ci geesu ña nga mu cay soññee te xam ngeen ni kiy liggéey moo koy man kon daal liggéey ci lislaam day lu am solo cheikhul xadim mi nga xam ne nag lislaam rek lay yeesal di ko yàkkali wax na ci lu bari waaye moom euh, kasbul xalaal la koy wooyee ndax bu ñu ne bu ñu ne liggéey rek am ndaw ku ndax mën naa jàpp ne lépp lu mën a yëngatu ba am dara rek sañ na ko waaye déedéet kasbul xalaal moo ko tënk mooy la ngay yëngatu na nekk lu lew na nekk lu euh, sell mu wax moom sëriñ bi ne wa xalaali xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi gayri wahami sàkk lu lew farata la ci bépp jullit ndax lépp loo xam ne Euh, dañu wax ne maa laa yati maa laa yatimul waajibu illaa bi fa huwa waajib lépp loo xam ne bu euh, antuwul doo mën a def sa warteef loola day nekk warteef te yi nga xam ne soo amul loo loo loo suturloo di ko sàmmee sa ngor ak diine soo ko amul yu bare bare bare ci jaamu yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla yi dafay manqué moo tax xam ngeen ne lekk lu lew di jëfandikoo lu lew charte la ci ñu nangu sa jaamu yàlla loo jaamu jaamu yàlla te li ngay jëfandikoo du nekkul lu lew sunu borom amu ci soxla kon jëfandikoo lu leew euh, day tax ñu nangu sa jaamu yàlla euh, moo tax Sëriñ Tuubaa tudde ko kasbul xalaal liggéey nag du tee jaamu yàlla bu kenn defee ne liggéey bi ngay topp ba doo jaamu yàlla sa borom. waaye liggéey bi da koy boole ak jëf santaane sunu borom bi wax nañu ne sëriñ fàllu bi mu nekkee ci kaw suuf su weeru koor mu saa jot dafay def euh, waxlu ci jumaa ji dañuy yéene ne sëriñ bi nee na gan gi agsi na na ci ñëpp taxaw kenn ku nekk na ko def ni ko yàlla santaane kem kàttanam koo xam ne nag liggéey ba ngay liggéey ak euh, koor gi mënuñoo ànd na nga bàyyi liggéey ba te woor weeru yàlla koo xam ne tam Euh, man ngaa boole liggéey bi ak koor gi te amuloo doge nee na na nga ñëw ci moom sëñ lu mu jox la loo doge ba weeru jeex kon daf daan santaane koor gi waaye danaan santaane itam liggéey bi wane na ñoom ñaar lenn mënu ci ñàkk liggéey itam xam ngeen ne day tax nit ki du tayel tayel dafay yàq diine dafay yàq àdduna nit ki dafa war a sawar di yëngatu di faste xànc ak morom ja sëriñ ba Bachir wax na ci menanul baqil qadim nee na diine tayal da ko yàq adduna tam tayal da ko yàq kon nit ki nga xam ne dafa topp rek noflaay lu mu gën a yàgg day gën a euh, bëgg am noflaay dootu nangoo ñàq waaye soo dee liggéey day tàggat saw yaram euh, ci ñàq ak sawar bokk na tam ci njariñu liggéey day tax nga moom sa bopp ndax soo mënalee sa bopp dangay sañ ci sa bopp wolof nee nag euh, kula ëmbal euh, ku ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa nit ñi bu fekkente ne ñoom nga yaakaar euh, boo sàgganul fa leen soob rek ngay gur waaye boo dee góor góor góor lu di liggéey da nga mën a say soxla yoonu kenn du ca xam ngeen koy Serigne Touba waxoon na ko dafa santaane woon na kenn ku nekk joxe ñaar fukk ak juróom-ñett ba ñu ko dajalee muy lim bu bari te la waxee ne lii ma leen di sant de su ma ko sa su ma su ma ñaanoon tubaab bi jumaa dana ma ko defal na ma ko bëgg te duma ci sonn waaye dama leen di bëgg yee ci àdduna dama bëgg lépp lu ngeen soxlaati na ngeen ca taxaw def ca seen kem kàttan def ca la ngeen man def ca la ngeen am fu seen doole yem nag ngeen taxaw néeg fa say say say yajalullahu baada usrin yusran ngeen taxaw ni fa yàlla euh, kon gis ngeen euh, jumaa ji taalibe yi ci seeni taxawaay ak seeni pastéef ci lañu ko liggéeyee lépp loo xam ne ci ki fi nekkal Serigne Touba tam sémbu na ko euh, ñëpp dañ cee taxaw ba mu am ku na mu ko bëggee moo tax du ñu séentu ndimbal ci bitim réew du ñu séentu ndimbal ci biirum réew moo tax ñu moom seen bopp xam ngeen itam liggéey day saafara ay jàngoroy xol lu mel ni rëy rëy sëriñ Tuubaa daana ko jëfandikoo nit daana ñëw jébbalu fekk mu ngi bokk ci li ñuy wax yax bu rëy waaye da koy yóbbulu ca daara ja di ko liggéeyloo mook euh, dongo yi ñuy ànd di xëyandoo di gontandoo di root di taxam su yàggee xolam day toj li nekkoon ci moom ci ak rëy euh, ak ci fonk ab juddoom ak yax bu rëy bi mu bokk day jeex ci moom mu doon rek taalibe doon taalibe Sëriñ Tuubaa sëriñ fàllu nag mi nga xam moom la ñuy dëgmal bisam bu ñuy joxe ci moom misaal ci bëgg liggéey dañuy wax ne ku teel a bàyyi xel loola la ana nu mu ko teel a bàyyi xel mooy dafa teel a sanc euh, ba sëriñ tubaat bàyyi ko Jolof dem sanc Njaaréem ba ca déwén sa mu woolu ko moo mook Cheikh Mouhamadou Moustapha digal leen ñu sant ay barab sëñ Moudou Moustapha da ko wax ne ko sëñ fàllu de moom am na tawféex ndax fekk na li ngay santaane fekk na moom wut wut na barab wut na barabam kon ndindi gi nga xam ne moom la sancoon sancoon na ko laata sañ bi di ko santaane waaye bi ko sëñ bi santaane kon yeesalal na ko pas-pasam yeesalal na ko tam liggéeyam kon moom ku teel a sanc barabu boppam la te sëñ Tuubaa moo daan wax naan day leen sañ ci seen barabi bopp ndax ku sancul ñu rëddal la te ku ñu rëddal ne la yemal fii moo tax ñoom ñu xam loolu daan sanc seen barabu bopp barab yim daan sanc nag yu bari la ndindi laa ca tudd waaye mën ngaa wax aaliya aaliya barabam la madina mboobam barabam la Touba Mirina euh, barabam la ak nag yeneen ak yeneen Touba Bogo barabam la ak ñànk gi nga xam ne daana fa liggéey ak xaayaan wala wala xabaan xaayaan ci wetu xabaan la ak yeneen ak yenn barab yoo xam ne fu ci ne sanc na fa yóbbu fa mbooloo ñu fay jaamu yàlla di fa liggéey di fa euh, defar seeni pas-pas te mboolem lu ñu fay liggéeyee lépp dañ ko ko yët mu di ko def ci sémb bi nga xam moom la sémbaloon Cheikh Amadou Bamba daana dem ca daara ji di wax mag ñi ne leen euh, te loolu sëriñ ci Thierno Diop mi newoon ci dëkk bi di nijaay Serigne Jilim sëñ Fallou moo ma moom moo ko mos a nettali nee na mos naa ñëw ci daara ji fekk ñuy liggéey mu ne leen na leen leer ne seen ñax wii ngeen di tuur fii di di ay gor di ay jullit jullit ne fii di tuur seenu ñaq sëriñ bi rek moo tax ngeen di ko def waaye lii ngeen di liggéey de bu naree mooy naal bee ma ko naaral muy jumaa ji yàlla mel ni xorom xorom yàlla mel ni xorom waaw daal ne leen na leen leer ne mboolem lu ngeen fi liggéey ca naalu sëñ Tuubaa bi fa la jëm kon daana sanc ay barab waaye barab yi mu daan sanc nag loolu la ko daan doyee mooy dafa yóbbu mbooloo eh, ñu ñu toll ci jàng di jàng ñu weesu jàng tam di fa liggéey te lañ fay liggéey lépp xidma la lu ca tukkee da koy def ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi daana soññ itam nit ñi ci ñu dellu ci all bi di faste xan ci ak morom ji xam ngeen ne taax yi kaw kaw yàgg na bëgg ay taax dañuy dem ci taax yi dafa di jaayaatu ak di fa liggéey liggéey yoo xam ne amul solo soo ko defee su nawet mosaa jege da daan wax ci rajo bi naan na ngeen bàyyi soow ak waa soow bi te dem ci penku bi dafa fas yéene futtiku liggéey la kon moom euh, bu ñu ko déggaloon kon ni euh, waxambaane yi yu bare bare bari wan ginnaaw àll bi dem ci taax yi te seenu liggéey amu fa solo kon du ñu ko def su nawet mosa jege tam da daan jàppale baykat yi fexe ba wax ak nguur gi jiw yi nga xam moom la ñuy joxe mu soññ leen ba ñu yombal ko baykat yi te bu ñu liggéey ba muy sotti itam ba mu sotti itam da leen wax ne leen nañ ko jënd te buñ ko jënd nañ ko jënde njëg bu baax kon daana jàppale baykat yi daana jàppale mboolem kuñu liggéey ñii liggéey sax ci waa nguur gi da leen daan jàppale bari na ñoo xam ne soo waxtaaneek ñoom dañ lay wax ne la man day suma amee liggéey yàlla ak uh, ñaanu Sëriñ Fallu la wala man de su ma amee liggéey yàlla la ak nag taxawaayu sëriñ fàllu loolu mën nañ koo ñu bare bare dañ koo seere ci sëriñ Fallou ci fonk liggéey ak liggéeyam li mu doon liggéey nag li mu yaatu yaatu fu ne daana fa ba fa bay di bay mbayum nawet di bay mbayum noor Richard tool amoon na fay tool loolu amoon na fay tool yu bokkut ak tool yi ma njëkk a wax waaye mboolem fu mos di liggéey la fa daan soqi ko Euh, daaw ko jëmee ci bopp boppam wala kennam da ko daan def rek euh, ci liggéeyal sëriñ tubaa def ko ci liggéey Serigne Touba ak di ci dimbali jaamu yàlla yi ndax moo daan wax naan dee leen jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi kon musta dencal dara xam ngeen ne euh, bi mu génnee àdduna li mu bàyyi ci alal lu néew a néew a la bu ngeen fàttali ko sax daaw cérémonie daaw bi defe naa ne Serigne Ahmadou Rafaay ma ngay nettali ne ñoom ñi bokk ci moom te doon ay góor ba ñu leeralee ginnaawam kenn ku nag mille huit cent franc nga am ci sëñ Fallou mille huit cent xam ne kooku bàyyiwul lu am solo kon li daan jaar ci loxoom lépp da ko daan defaat ci yoonu yàlla di ci dimbale jaame yàlla yi moo xam ngay mbokk moo xam ngay ku jege wala nga bàyyee ko fa sore sore sori boo ñëwee du xool ci yow lenn lu dul jëmmi yàlla rek lay xool ci yow te xaw nañu baree bare baree bare li mu yóbbu ci màkk kenn xamul lu mu toll li mu euh, dimbale ci ñu néew doole kenn xamul nu mu toll li mu may ci ay oto kenn xamul nu mu toll man-man yooyu yëpp nag liggéey moo ko ko may nit ki day liggéey su ko defee mooy tax mu mën a faj euh, faj soxla mooy tax mu mën a faj gàcce kon daal loolu lañuy tënk tënk bu gàtt gàtt gàtt euh, ci sëñ Fallou ak liggéey ci wàccaay bi ñuy waajal bisam bu màgg bi muy ñaar fukki fan ak juróom benn jëm ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab di gërëm di sant nag euh, sëriñ ahmadul badawi ak ñi koy jàppale ci euh, léggéey bi mooy di tasaare njàngaleem sëriñ Touba te di ko sukkandikoo ci sëriñ Fallou mi nga xam ne mooy sunu bunt ñun ñun ñëpp ci yoonu sëriñ Touba yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm te buñ ci àggee yàlla nañ ko weesu ak jàmm te yàlla nañ ko fekkee at yu bare bare bare bare yàlla yàggal fi Cheikh Abul Baraka euh, ci kanam njaboot gi Euh, yàggal fi mboolem njabootum Cheikh Mamadou Fadil Cheikh Mamadou Muntaxaatam suñu borom yàlla ko dolli wér fiq aw fanam ba li naal lépp yàlla na sotti tanoo ànd ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaaroo ci mboolem lawlu yow falliloo yaay Moustapha yaay Muntaxal yaay wàlliyu géeju mbindeef ay gi neex na Mbàkke Cheikh Falloo